barkeb Sëriñ Béthio asiiru mal abraari hinnaasi nanu maase way Sëriñ Béthio sunu ba sëriñ sant war nanu sant war nanu nanu leen maase way Sëriñ Béthio sunu ba sëriñ sant war nanu sant war nanu Falilu Mbàkke jërëjëf yaa nu baaxe Sëriñ Béthio mi sunu bu seex Béthio mi sunu bu seex beneen na ne xam yàlla li jaroon dem ba ci na cuun yanu wan na ko doy buur yanu wan ko doy buur Sëriñ Saaliw borom jamono yi xam ko cuuna moo gën a rëy ci luy xam jamono daw si leen jamono daw si leen waa jamono daw si leen jamono daw si leen tey ñu santaat sëriñ bee ko sang bi monu waan borom baam waan borom kii sang la nu roñaat mu yàgg foog koo kawe suul la mu doon daadul ñaar la mu doon daadul ñaar wàccu yàlla ci nit nit ka teewe nee leen sëriñ bee joo danu yem adi borom jamono moom jam ñi ku ko wéet di yaareer barkeb Serigne Béthio